mbokk yi xarit yi ñu ngi am mbégte ak contentement di leen dalal seen plateau màggal des célébrités ci noonu la ñuy dalalee kii di Secka mu wax ñu nu mu dundee màggalam Secka noo dundee sa màggal. waaw salaamaaleykum soxna si maa ngi nuyu Sénégal gépp di leen ziyaara di leen ñaanal yàlla nañ fekkee màggal yu bare bare bare bare waaw bu ñu noppee ci Secka ñu wëlbatiku ci Salam Diallo di ku ñu ràññee ci mbalax mi mu wax ñu nu mu dundee màggalam. asalaamaaleykum mbokk jullit yi asalaamaaleykum mbokki Sénégal mbokk àdduna bi yépp seen taalibe seen xarit moo leen di nuyu Abdou Salam Diallo taalibe Serigne Saliou di leen ziar ci màggal gi di baalu ñëpp àq baal ñëpp àq di leen xamal ni tey seen télévision fekk na ma fii ci kër Serigne Saliou di kër Ablaye tage di sëriñu soxna momi Kébé fi nak at mu jot fi la ñuy magalé di fa sante Serigne Touba di ñaan yalla di ko def at mu jot magal gi nak buñ ko waxé ñëpp xam nañ ko di commémorer bëss bu mag bo xamné suñu sunu ga sunu jambar ga Cheikh Ahmad Bamba moy ndam la mu amoon ca la nga xamné ni tukke tukkeem nga xamné fa la amé la am di ci ñaaxaat ñëpp rek xamné jom xéxal yalla jihaatul nafsi ba nga xamni mom la defon tay moko may li yépp ndax ay moromam ak ñeneen ñeneen ba ñuy xéx di jël ay arme di ci xéx ak ngarnaay dafa ni je fais la guerre par la science et la crainte révérentielle en Dieu manam ci jaamu yalla ak jéggale ci lay xeexee xeex bobu tay moko may ndam foo dem ci àdduna Amérique France fu nekk ci àdduna da ngay gis murit yi di marché te kenn du leen tere marché ci yoonu yàlla ak yoonu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di delloowaat ñëpp rek ñu ñaaxaat gën a fonk suñu borom gën a jàpp diine Seydina Muhammad Cheikh Ahmad Bamba bi nga xam ne mooy suñu yaakaaru àdduna ak alaxira ki nga xamne mom la fi teg muy Cheikh sidir Maxtaar yalla yagal ko fi ba mu wér mbébét bu mu liggéey ak li nga xamne mom la bëgg a liggéey Sëriñ Tuubaa yàlla kàttanal ko ko ba mu yegg ak bépp khalifa ak bépp kër diiné ñoo ngi leen di gërëm di leen sante télévision TFM sen télévision ak radio RFM sen radio ñoo ngi leen di souhaiter un bon magal képp ko xamne am mon nga tolof tolof yalla na la ko yàlla teggil képp ku ci bëgg koom-koom yàlla na la ko yàlla may te njiitu réew mi moom tamit yéen bi yàlla wàññil ko ko ci barkeb Serigne Saliou maa ngi sant sama sëriñ sëñ Moustapha Saliou sant Cheikh Modou Kara Mbacke Noreyni Abdourahmane Fall Tilala képp kuy Mbacke Mbacke képp kuy wax ashhadu an laa ilaha ñoo ngi lay sant di la ñaanal fan wu gudd di ñaanal tam ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon te nekkuñ fi yàlla yóbbu leen ci àdduna ajjana yi gën a kawe ci barke Seydina Mohamed jërë ngeen jëf Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm. rappeurs yi nak lañuy jéxalé ak artiste bi di Fata kuñ dootul présenter ci milieu hip hop bi Fata nak la dundé magalam màggalam. asalaamaaleykum TFM ak téléspectateurs yi ak euh, ak sénégalais yépp ñi ñi seetaan fépp ci aduna donc man la Moustapha ñi ngi comme on dit Fata euh, maa leen di ziar ci magal gi. Euh, di kontaan ci teew fii donc euh, chaque année aussi fi laay ñëw dal kër Soxna mumi et vraiment mu mu mu nek ben période bo xamanteni période d'hospitalité la et période la bo xamanteni ni aussi euh, man philosophiquement dama gëm né Serigne Touba liggéey na ci yoonu l'islam liggéey bu am dayo bu tay ni war nañ mëna war na mëna

Euh, soxna Moumi yi ak sëñ Ablaye Tage di borom këram vraiment dara du fi manqué dañuy teral teg ñu ci kaw berneel ñu mu mel ni euh, bis la boo xamante ni dañ ci dañ ci farataal ay berneel ak sant ak char donc ñun ci yooyu lañ la ñuy yëngu euh, ay bi lañ bu weesoo lépp lépp lépp dañuy dañuy dañuy dañuy bëgg nekk nit yu woyof lañ bëgg nekk ay nit yu am diine am ay kilifa. donc euh, vraiment ñu nekk murit nekk aussi tarixa boo xamante référentiel si man en tout cas suma jëm ji euh, seen ni ñuy ni ñi liggéeyee Pastef bi nek ci ñom ak talib bi nek ci mom man mo ci jëm tagatu. donc loolu mo waral suma teewaay di ñaan Yalla aussi ñu dund ay at yu bëre bay ñëw ci magal Serigne Touba. خليلك إبراهيم يا الله